bismillah ñaanal na lu leen jàmm yéen mbokk yi nii topp ci sunu càllale gii di Xalam muy chaîne YouTube bi jagu jëm ci jàngale ak liñ bët muy li ñu tuddee investigation ñu di leen ci yaatalal ay wàll yu bari te wuute ci xeeti xam-xam yi yenn saa itam ñu laal ci xew-xew yi muy li ñu tuddee actualité ay mbokk nag daañu laaj lu jëm ci xew-xew yu réew mi muy li ñu tudde actualité yu réew mi ngir ñu leen ci defal ay wópp waaye lu jëm ci xew-xew yu réew mi niki ñu ko waxe woon daa bari ñu ci yaatal lool waaye am ñoo xam ne itam dañuy leeral mbir mi ba mu leer nañ teg ko ci ay argument muy ay lay ak ay firnde yu wér yoo xam ni kenn du ko dindi te dal bés di tudde Xalaat TV muy càllal ak YouTube di ci def liggéey bu ama am solo diiru ay at yu baree bari ba lépp lu ñëw bu dee lu ump askan wi wala lu leen jaaxal mu leeral ko leeral woo xam ni xëy na def ku ni mel mën naa bañate a te yomb te wolof njaay dañuy wax naan leeral lu leer day indi lëj bu weesoo loolu itam télévision bu mel ni Walf TV dina ci def liggéey bu am solo jàmbaar ya nga xam ni ñoo fay faral di yaatal te askan wi dong tax leen jóg ngir jëm yàlla ñuy xamal nit ñi yu bari ci nga xam ni mooy xew ci réew mi di ci def ay caaf muy li ñu tudd analyser yu mucc ayib daañu fekk itam ay càll la yoo xam ne mbooloo mu bare ngi leen di copp ci barabu ñuy réeral nit ñi waaye dañoo taxaw temm ci di gindi nit ñi waaye di ko jaar ci xormal muy li ñu tudd imuur ñu gën ci siiwee ku mel ni ki mag di nekk jenn jàmbar ju nu xam lool ci ñime dëgg saa su dëgg jotee mu taxaw wax ko te yàqalu ko dara ci li muy def ci wàllu xoromal ak ku mel ni ki zaal ñaar ñooñu nekk ñoo xam ne ak donte dañuy xoromal mbooloo mu bari di leen topp itam toxul benn yoon ci li ñu leen mën a seedeel ci li ñu gis ñu jële nit ñi ba ñu jëme nit ñi fenn wala ci lenn lu ñu leen di mën a jame ku ci nekk nag sa démbu lañu la mën a tuddal ndax mooy sa mboor waaye sa suuba yàlla ko xam ndax doomu aadama dafa bari meloo waaye yàlla na yàlla dollenoo gindi te gindi ñi nga xam ne ñoo ngi yore lu mel noonu waaye nekk di réeral nit ñi nekk ci caaxaan yu amul bopp amul kenn sunu réew mi nag li fi di xeeti caaxaan wala nu ni sax li fi nekk li mag ñi naan kenn mënu ko wax ndax bis yu tuuxi doona ci kaw tuuxi doona ngay dégg muy li ñuy tuddee scandale ci kaw scandale ci politique bi ci société bi naka noonu ci nguur yi muy gouvernement yi wala nu ni gouvernement bi tiis wu doy waar jaaroon na fi xëy na àddooguñu ci woon verbalement walla ñu ni ci kàddu ñoo ngi jaali ñi nga xam ni ñooy woy ñàkk ñi di ñaan yàlla mu yërëm ñi fi bàyyeekoo yooyu nag su dikkee ci daar daar ak yurut yooyu du ñu ci mën a wax mbaa ñu mën ci àddu ci daar daar li ko waral moo di ni jot gi muunu dun may ñuy man di nekk ci mbaali jokkoo yi saa su ndax ni ki ñu ko waxe woon dunu ay youtubeur waaye dañoo nekk loo xam ni wala ñoo xam ni saa su ne suñu xamee ni lii luy jariñ askan wi la ñu taxaw temm def ca lañu man lañu ci mënut ñu bàyyi ko seen borom tey ñaan waaye sunu jamono ji xojee xëy na di ngeen gis ñuy jàllale ci sunu càllal gii di xalam tv ay wëppa waaye nikkul ni wëpp yi ci jamono jooju lañ ko def ndax lu ci bare bari ndegam dañuy xat dañuy def suñu féexe as tuut ñu waajal ay wëpp yu bari di leen ko jàllaleel ni ki ngeen koy gisee mën naa doon sax jamono bu yàgg li nga xam ni nag moom la ñuy wax ci xew-xew yi fi xew xëy na am na ci yoo xam ni du jar ñu ci jiima dugg ak ay firi fàcce ndax dafa indi wala ma ne dafa am ñu indi lu ci leen naññi te bu dee bi ci mujj mooy lu mel ni ki ji ji fi xawoon ñu di ko tudde accident nga xam ni la fa génn àdduna wax nañu ne tuutee ko tere mat ñeen fukk ak doonte am na ñuy joxañ lu ko ëpp fuuf waaye dis na wax itam ne ña ca amee ay gaañu gaañu àgg na juróom benn fukk ku mel Xalaat TV nag amal na ci wuppa am solo wuy leeral sababi biti yi ñeel mbir moomu foofu nag xëy na nun li nu fi njëñse muy li nu ci commentaire du nekk lu bari lañu ca mën a wax lenn rek la moo di ne mboolaay muy société wala am réew daa mel ni saxaar saa soo xamee ni locomotive bi jógewul fi mu nekk maanaam demul wagon yi duñu dem muy li ñu tuddee wagon yi wagon yi jóge fi ñu nekk waaye itam raay bi lu mu gudd gudd baa mu gàtt gàtt saa bu bopp saxaar gi wàcce yoon wago yi yëpp dañuy daldi aw yoonu raay mbaa ku ci raayut itam dootoo dem lii nag mooy li nga xam ni moom lañu génneeg tey jii ci sunu mboolay gi ñu jiite dañoo wàcc yoon bu yàgg su loolu amee nag lii dong mooy mën a nekk njuréef yi mooy lu neex waay def ndax am réew saa soo xamee ni ger du fa dara maanute amu fa muy justice su boobaa conséquences yi muy njiréef yi lii dongo lay mën doon yenn saa danga dégg kuy xas sunu askan wi naan xëy na yëruwuñu wala lu ni mel waaye bu xaman tuuti ci mboolay xam muy li ñu tuddee sociologie dana xam ni wa àdduna bi yëpp yam amu ci kenn koo xam ni wala wenn askan woo xam ni dangaa gën wa ca des lul nañu leen yare askan wi ku leen di yedd mbaa bu nu leen di yedd lenn dong la ñu leen di yedde mooy ñàkk di tànn ku baax ak neex ak ger ak li ñu tudde intérêt personnel maanaam sa yitte bopp tax ngay jàggati yi kay yi jàmbur wala tax ngay jalgati ci kaw ak jàmbur waaye bu weesoo loolu seenu yarin loolu moo ngi aju ci kiy jiite réew mi bu ñu demee Chine gis leen ñu yaru tekkiwul ni mboolay Chine ñoom ñoo jékki ci boppam bëgg yaru yaru déedéet loolu amul fenn ci àdduna waaye dañoo teg ay luwaay yoo xam ni doomi président ak doomi ministre ñoo ci yem waaye doomi ministre ak doomi jàngalekat ba baykat ba directeur bu société ba ñoom ñëpp ku ci nekk sa doom ak sa baay ñoo yem ci àtte bi nga xam ni mooy dox ci réew mi waaye ba ñu tegi àtte ya ñu jël ko wax leen ko ci seen lakk yi ñu dégg ñu xam ni kat képp ku def nangam nangam lii muure ci fekk waaye jël leen di leen surveiller ku def njuumte lu gën ndaw ñu teg ci sa kaw atte ba gën a yàlla lool tax na mbooloo mi yépp xam ni lii moo fi nekk ndax kët nit ñaar rekk a fi am muy yàlla wala yar saa boo xamee nit ki ragalu yàlla ab yar doo nga koy mën a gindi te jamono ji nu toll ñii fiy ragal yàlla mën nga ni million bu jël xëy na kenn lay nekk ñeneen ñi ci des ñëpp yar doo nga leen mën a teg ci yoon wala bi yar kon nag responsabilité bi képp kiis ku jiiñ ku dut ñeeñ njënk mi jox leen alal ji yëpp jox leen kàttan gi yëpp muy mboolem pouvoir yi ku keneen ku nu ko jiiñ ku ñooñu dañu la tooñ waaye nun li nu gënati yéem sax du loolu nga xam ni wees na ndax loolu noonu ginnaaw ba ñu ci mënee joxañ la nga xam ni nit a ko def dañu naan dogal bi yàlla moo ci jiitu ni ko ñëpp waxe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla na mun ni ñooñu génn àdduna ñi yëpp ci bis boobu lañu waroon a génn àdduna waaye nit ki nga xam ni nit jël fital ni ko tëll mu dee xam nañu ni bis boobu la waroon a dee waaye ka ko rey duñu ko bàyyi noonu dañ koy teg ci yoon waaye li gën a gis nag mooy fakk musiba bu nu xoolee sunu réew mi wax nañu ne 2023 bi ci lañu gën a tiit ak ndonte nag tiitunu ngir sunu bopp wala ngir sunuy jëmm ndax de benn dong la kenn du ko def ñaari yoon waaye lañu tiit mooy nooteel gu yees bu gën a ndax sunu réew mi xam ni ci jàmm lañu ko xame woon sunu maam yi nekk woon fi waaye doon àtte ci maanute ba tubaab bi ñëw yàq loola lépp ginnaaw ba mu boomee mboolem jàmbaar yi nga xam ni ñoom la jàppoon ni ñooy jiima jëmmal maanute googu ci kaw suuf samp fi benn système boo xam ni système ku ñëw rek daal di yore doole ji di doxal sa doole karaas yi tax na nag yaa def ak defoo sunu réew mi xawoon na cee tàkk ba xaw ci nërmilu ba ñu mënoon cee ñàkk sunu réew ba faw mënoon fee jaare ñàkk jàmm ba faw dafa mel ni lii ñu gis muy raam ca ñag la jëm yàlla na ko yàlla wëlbati te mooy koo xam ne ñëpp taxaw nañ seede képp ko ragal yàlla nii la lii ñu lay tuumaal day defoo ci dara yàlla seede ni la ñu lay tuumaal foo ci dara bu ñu nee nag faw dañ la condamné kon dafa mel ni fitna dong la nar moom la naral jural réew mi juróom fukki nit la ñenn yi wax naan moo dee ci ab ex ab accident xam ni loolu bett na ñëpp ndax kenn bàyyiwul woon xel ni dana am ba tax ñu ni dañu koy dëjal ci ñetti fan ci dëj boobu noonu ñi ko décrété day mel ni ñoo ngi séentuwaat leneen loo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañu ni mën na am te mooy dee goo xam ne kenn mënu ko éviter kenn xamut fu muy mujj su fekkee tey ni lii ñuy gis muy ram àgg na ci ñag ba loolu nag yàlla moo xam ëllëg noo ngi koy ñaan ba mbir mi ñi nga xam ni ñoom la nekk ci seen loxo ñu di ay attekat ñu ragal yàlla xam ni lu way ragal lu dul yàlla bis dina ñëw mu won loola ginnaaw ñoom ñaar ñu ànd ni tott ci kanam yàlla ndegam nag ab attekat fii ci Sénégal kenn mënu koo dàq ci atte li la yoon may lu may affectation muy jële la fi nga nekk yóbbu la fu sori wala jiim laa gàllankoor ci sa dafa mel ni jiima xool li dëgg nga atte ko ñu yóbbu la fu sori te fu nu la mën a yóbbu du weesu réew mii di Sénégal nga nekk fa ànd ak sa bakkan xam ni muccal nga doomi réew mii nga xam ni ay nangami téeméer wala ay nangami junni boobu tut mënoon nañ ci ñàkk seen bakkan gisuma lool lu ko gën di courage gisuma lu ko gën di ak te man dama gisut ana nit lu muy war a mën a ragal ci koo xam ni la ko desee su fekkente ni jaar na yoon duutu mat lu muy am at akus tuut wala ñu ni sax am atum kese ana lu ab attekat di war a mën a tiit bay du réew moo xam ni réewum jàmm la woon ci fitna joo xam ne xamul fu ñu mujj bu fekkente ni attekat bi dafa àtte ni day condamné koo xam ni yàlla setal na ko lu ca mën a judd mën naa dem ba nga xam ni moom affectation ba mu doon ragal wala pression ba ñu ko doon teg ba tax muy ragal mbir ma dana jéggi foofu ndax boo muy tuut tubaab yi ci boppam ñooy ñëw envahir sunu réew mi mboolem li ñu fi amoon ci lu baax ñu jël ko dem seen yoon waaye sax bu ñu ca bàyyi dañu nuy defaat ay jaam yu yees ci nii wala ci naa te deesu ci man dara te xamul moom fu muy mujj wala taxsibanna allaha gafilan amma yacmalu daalimuun innama yuaxiruhum li yow yawmin tashxasu fihi al absar bu leen jàpp nag ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk kàttan yi muy pouvoir yi ñuy def lu leen neex yàlla da leen a gisut wala da leen a yëgut ku la neex man nga tëj ci kaso bi ku la neex a man nga faat yow mi yore doole ji mel ni yàlla sax di fut dara waaye da ngay yëg ni yow ci boppam yaay def yàlla nee na bu leen jàpp ni ñooñu noonu dañoo tëli ci man leen a dakkal mbaam man leen a faagaagal diidit dañu leen di xaare bis boo xam ni ci la ñëpp na tot bis boo xam ni ci la war a am ñetti yi bàmmeel ci lañu ñu war a nëb ci la leen sax yi war a lekk ci jamono jooju itam ci la leen jaan yi war a fekk ci bàmmeel yi ñoom ñi nga xam ni dañu daan fi tasu rek gaa ñu jóg defal leen la bëgg ñoom ñi nga xam ni dañu daan xusi rekk torlu muy signé la ñu bëgg daal di am bis dina ñëw ay jaan di leen matt ci biir bàmmeel di leen buggal ñuy xool te duñu ci man dara sunu réew mi nag nekk réewum parparloo réew moo xam ni ku ci nekk da ngay xool ni man kii la àndal waaye bàyyi fali dëgg bàyyi fali yàlla téeméeri nit daanaka yoo gis ñu naa jullit lañu man nga ni juróom dong ci jullit waaye lu ci ëpp la ca des ay yéefar lañu ba sax ay yéefar di leen tane ndax ab yéefar day weddi ba nga xam ni moom gëmut yàlla nga xam ni gëmu ko julit bi gëm yàlla ba nga xam ne gëm yàlla nga xam ne gëm na ko waaye ñi ci gën a doy waar mooy naafiq yi nga xam ne doo xam yëfar lan doo xam jullit lan innal munafiqina fi darakil asfali min annaari la laye ja wax ñoom ñoo gën a bon moo tax yàlla ca souterrain ba gën a xóot ci safara foofa la leen di tàbbal réew la moo xam ne ku faral kenn mën nañu ni nitu politique la wala ku ni mel da ngay jàpp ni képp ku wax ci moom la nga war a def rek mooy daal di koy saaga yonente bi nee nañu woon yàlla rëbb na ñuy saaga seeni ndey ba ñu ne ko waaw nit nu muy saaga ndeyam ak baayam mu ni day saaga ndeyu jàmbur wala bàyyi jàmbur jamono jii nii saa bu xamee ni yaa ngi wax lu neexul nit jàpp na ni sa bakkan bi moom far rek moo ci jekk waaye nag li kuy dund war a xam mooy الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان تيتم نك ما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها بوكو نيب خامو نونو نيب عند نوبل وي بروزي بيغا خامني موم لي جيمي سفاري دي نوت نوتي غير بوكو عمل بلا مو سوتي بلا سين بوغ بوغ بوبو دي سوتي يالنا يالا خبولين مبولي مصيبه يتي نارو جودو با mbir mi yem ci seen kaw lépp lu ñun tiit ci sunu réew mii di Sénégal loola bañ a am mboolem ñi nga xam ne jóg nañu ngir sunu réew mi ko yaxeet taal ko ci ay caaxaan ci ay duuralaate ci ay kàcc kese ci ay accusation mboolem jëmm yooyu lépp loo xam ni nar naa dikkal sunu réew mi ci amuk projet boobu ñuy lam-laamee ndax dana am ak du am yàlla na yàlla xëpp mboole musiba ya ci ñi nga xam ne ñoo ko bëgg amal ba nga xam ne kenn ci doomi réew mi du ci loru sunu réew mi du ci ñàkk koomam mi indépendance am bi jàmmam ji jàmmi Sénégal nag mooy jàmmi képp kuy dund ci